karaw gu xawe blonde bi pré la périg bi tabaarakallah ni nee na na nga ko wax ni ko mi ngi yeesal diggante ak moom diggante bi nga xam ne moo dox seen diggante sorewul waaye jigewul waaye itam dafa mel ni dara doxu fi nee na mi ngi feddali attachement am ci moom ci di feddali affection ci moom ndax moom la mu leen fa waxoon rek ni leen ku jar a déglu la dafay kaf dana fecc li tax nag kenn du ko mere nee na su defee def nag ba mu war a naqari nit ñi xale yi wayal ko mu tere leen naan déet déet da boole kook nag tànk bi nag naan déet déet boole koog tànk ba ak di waxtu bay jë nag tabaarakallaahu nee na moom day ku doy waar la nee na Kouthia ku doy waar la nee na yàlla fu nekk lay binde jaamam jamono june ne dana nit ku yéem ñëpp Kouthia nee na njàngam demewul noonu waaye li liggéey ak message bi muy passé nee na bari na ñu ko mënul de bari na ñu ko mënul dafa gis nee na Mimi Touré ñuy waxtaan ma ne ko yow day mësuma laa gis nga ree mu muuñ mu ne ko yow gis naa la nag nga xàqtaay bala Kouthia di wax accéléré naan cadence mu ko keroog de ree nga nag mu ne ko man dey Euh, ko Kouthia daf maa joge kaw sax daf maa jóge kaw sax bàyyiwul kenn Abu Bilal eh, tabarakallahu mi ngi ci naar yi mi ngi ci sëriñ si mi ngi ci tubaab yi mi ngi ci tuuru tubaab yi ndax madame Wade ndëpp yam daan def nee na Kouthia di ko def di wax Marie Jean Paul xaw ma nee na ku ne mu tudd la koy xool ba mu yàgg rek waaye nee na lenn nag moo ko jaaxal lu tax mu ko ak njaay woykat ba lu tax mu tàqalikoo ak moom nee na njaay may la am ci woy nee na Kouthia moom am na may waaye njaay am na may boo bëggee santé mu santeel la boo bëggee woy séeréer wala tukkulóor wala leneen mu defal la ko nee na keroog ba muy nuru nuru lu far Ngom ca bu waalo ba dañ doon werante naan Farba Ngom la wala keneen la yooyu yëpp mi ngi ci nag su ngeen demee ngeen nuyul ko moom may may di Kouthia bu baax nee na ngeen nuyul ko ko bu baax ni ko yàlla na ko yàlla gën a barkeel yàlla na ko yàlla gën a jubaleeg personnel ba yàlla gën koo jubaleeg kilifa ya bi jaahi nabil Moustapha nee na Mamadou Ibra yàlla na leen yàlla jàppale jàppale nag Youssou Ndour tabaarakallahu nee na nit nag def na effort bu ëpp nag bi Youssou Ndour def mag ko raw ko waaye amagul lii nag nee na ñu am sansu gisu ci boppam lu dul nag jox ca diine wàllam yàlla na leen yàlla dimbale daal fi ngeen jublu daal yàlla na ngeen ko paase